bonjour euh, chers amis et téléspectateurs Nous ngi euh, présenter une nouvelle émission Nous tuddee ko Karangé Karangé. Karangé, li que je veux lépp euh, sécurisation des personnes et des biens mën santé mën martial aussi ci sécurité incendie mais aussi et surtout mën nek nekk si wàllu sécurité électronique et cetera et cetera maintenant nag doomu bi lepp li ko war mi ngi ci nature bi mi ngi ci entourage am loolu nag kaaraange dina ci ñew bu baax wan len ay kangam wan len ñu seen xam-xam match ci walu wi bu ko defee lepp lo xam ni bin rek di leen dina leen aar dinañ ko indi légui nak karangé dina ñew aussi indi ay rubrique yu am solo manam dina indi rubrique démonstration ci walu euh, domaine Bindin indil mais aussi et surtout euh, rubrique question réponses Karangé, tout à l'heure vous le verrez sur euh, Xibaar 221 chers amis nous sommes toujours ci cette euh, émission Karangé Nous dem ci rubrique démonstration Nous avons li pratique indil ci wàllum pratique ci domaine art martial moy arbitrage maanaam ñiy atté ci seen domaine ñoom léegi rubrique démonstration art martial arbitrage tout de suite Euh, chers amis nous sommes toujours sur l'émission euh, émission Karangé, fii ci 221 Nous sommes avec maître Ibrahim, directeur technique euh, Integral Fighting System waaw maître ibrahim kon lan moo waraloon seen stage bi fii ci Major. Nous di d'abord maître M. Renat Thiour di nuyu du centre di Grum 221 C'est un teewaay ci stage bi commencer nous sommes nuyu aussi la fédération internationale internationale Integral Fighting System. Je remercier aussi le directeur technique international euh, maître Patrick Levet. waaw directeur technique international. waaw stage bi la euh, fédération internationale avons yónni maître Nasri maître Nasri di ceinture 5e cinquième Euh, pour mu ñëw fii Sénégal euh, fait un stage arbitrage niveau international avec entraîneur C'est un stage technique pour nous préparer. Euh, championnat d'Afrique en 2023 Il Maroc Nous fait ce Sénégal Maître Ibrahim, maître Ibrahim may préciser ñu ci émission Je gis volet art martial euh, dañuy protéger bu alors nous gis côté arbitrage bi carrément en compte est-ce que vous pouvez ci tout tuuti. waaw euh, ma ci venir remercier aussi. Euh, le président euh, de l'association Integral Fighting System euh, du maître Mohamed Touré waaw moo nekk nous ñun ñi ñëpp mën naa wax ni ci au nom de maître Aziz Ley mon moo tax ñu dugg ci biir di la remercier parce que affaire bu eggee fii grâce à nous. waaw ma ma ñëw sa question c'est la protection boobu ngay wax mooy kaaraange boobu ngay wax waaw parce que vous venez intégral. Integral une compétition yi su nekkee vat bi mooy bëre bi wala intégral bi mooy point pied projection arbitre yi seen rôle numéro 1 mooy protéger ñaari combattant yi d' abord parce que li ñuy bañ mooy combat bi jeex kenn gaaju moo tax arbitre yi seen rôle numéro 1 avant dara mooy protéger ñaari combattant yi ba combat bi jeex te kenn du am gaañu gaañu waaw ñu loolu loolu moom mooy seen rôle numéro 1 cela veut dire que kaaraange bi moom mën naa wax ci foofu la fekk baax waaw te arts martiaux moom bu ñu koy wax comme vous venez veuve intégral bi. Son nee kaaraange une protection moy gën am maîtrise parce que am maîtrise bu dafa am xam parce qu'il a la maîtrise en soi wa waaw da lola ci avez une maintenant pour terminer nan ngeen def ku ci bëggono bok wala mu bëggono ñëw ci fighting system bi bëgg ci ban niveau critères ban niveau la wara am ak la wara def ci euh, fighting system comme yeneen aar yëpp ni ngay intégré nga siy intégré da nga ñëw inscrire euh, dugg di entraîner def ay passage de ceinture waaw ba niveau supérieur am comme ni ko expert bu on ne peut pas maîtriser l'art du combat sans saisir la philosophie sans l'esprit le corps et sans lutter C'est la vie art martial du gars yi ni ñu ko yaakaaree sànni tànk tëb c'est pas seulement ça dafa un état d'esprit boo yor bu ñuy instauré yow mi nga pour être pour un véritable pratiquant amna na niveau boo xam bo fa tolloon ci la wax ni am nga état d'esprit bodo mais wax tu as la maîtrise en totale en soi. mais comme vous êtes en phase massification yenen maîtres yi nga xam ni ngi ci yenen art nek ci ay ceinture noire par exemple est-ce que ñoñu mën nañ ci am accès. waaw dañoo nekk ci euh, phase massification comme ni nga ko waxee waaw on appelle tout le monde ñëpp la ñuy woo waaw ñëpp la ñuy woo dafa nekk art boo xam ni man mii maître kung fu laa dafay plus de mën naa 25 ans 30 ans maa ngi pratiquer kung fu mais bi ma ñëwee ci intégral fight système bi.

art martial sans plus tarder dañuy dem ci rubrique question réponse Assalamu alaikum. bi mang lay ziar woy damay martial ak euh, walum xex. Manam lay lacc. lan la ndax rek ko wala dal lay lacc quoi. waaw euh, question bobu amna waaw parce que comme ni ñu ko xamee arts martiaux nekkul sànni tànk tëb xeex wala combat cassé waaw arts martiaux mën naa wax euh, état d'esprit la waaw état d'esprit la euh, aussi itam la maîtrise en soi waaw commencement bi kii doo ko jàng mën na yaakaar ne sànni tànk tëb naa wala kase la mais à un niveau da ngay xam ni dañ lay jàngal en maîtrise en soi la maîtrise en soi c'est ça les la la la les arts martiaux la discipline la discipline c'est ça les arts martiaux amul leneen. waaw moo tax question boobu am na solo pour ñu xam ni carrément euh, kii pratique art martiaux jàngul xeex suñoo xam dañuy confondre dañuy yaakaar ne kii def art martiaux dafa ñëw pour jàng xeex mais du loolu dañ lay jàngal nga maîtriser sa bopp loolu mooy art martial. bon salaamaaleykum maa leen di nuyu bon wàllum art martial dama gis ni nit su bëree histoire bëri xeex bëri problème dal. dañ koy faral di wax ne na dem defi ji art martial léegi mo bëggono xam loolu lan moko waral lan mo tax ñukoy ñukoy digal loolu. waaw question bobu amna solo. parce que gis nañ ko fi ñu ëpp xalé yu xawa tribal wala mag yi nga xam ni amuñu maîtrise da nañ leen dem la ngeen def art martial mais comme niñ koy waxé maître du n'importe qui bo ñëw ci salle bi dina xam yan attitude la wara dindi ci yow dina xam bax yow da nga gaaw mer wala yow wala yow wala bax yow da nga reuy si loolu lay liggéey ak yow. fekkee da nga reuy da lay bërënguloo di la pompeloo di la punir pour loolu mën dañ ci yaw su fekkee ko xam da nga gawa a tàng presque da lay da def looloo xam ni à chaque fois da ngay mer muy fexé ba ngay maîtriser loolu motax art martial solo gi mu am ku ci dugugul do ko xam wala boog ku ci nekkul un professeur do xam solo gi mu am. voilà chers amis donc l'émission tire à sa fin tay ñu indi leen euh karangé euh, comme ni ngeen ko xamé ci domaine yépp lañu wara lañu wara lañu wara la wara évoluer tay nak ñu ñëwoon ci cadre art martial surtout arbitrage nga xamni entre ñaari combattants yi nga xamni ni dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy combat warna am un arbitre bo xam day nekk seen digënté pour ñu baña gagnante gaañante toujours ci cadre kaaraange mais ci côté art martial seen xarit seen bok content trop tay indi leen émission bi au passage nak ñuy nuyu euh, notre expert maître Wade diko ko clin d'œil aussi euh, maître Tambidou nous mais aussi et surtout euh, remercier euh, l'équipe l'équipe 221 qui ci caméra caméras di Fallou vraiment di rendez-vous prochainement une émission mensuelle Karangé dina allons ci anam facette